waaye nag ndok ni ko Diop waxee ba Gilbert doonee nit koo xamante ne day xalaat nit koo xamante ne mi ngi xelam ba mu demee ba gis ne lii nga xamante ne nit ñaa ngi koy def ñoom ñii ñu defoon fi grève de la faim defoon fi lenn ndax benn jëmmi nit te boo toppee mbir yi xamoo fenn fu mu la jëme Gilbert ba mu dellu see xelam xam na ne moom cees la dëkk doomu cees la waaye tamit la may gën a neex ci ñëwu Gilbert bi

lu ni mel Gilbert ñu ngi lay tàllal loxo fas yéene ànd ak yow ba 2017 comme ni nga ko waxee fii ci banderole bi fas yéene rééliraat la président Macky Sall yéen ñii ànd ak moom tamit ah ralliement de yàgg na am waaye lu ni mel xam nañ ne yéen de gëm ngeen Gilbert Gilbert bu fi nekkoon doon jeune am nu muy doxee yaakaar naa ne kenn du ko topp waaye tey ralliement am na fi waaye nit ñu amee nii qualité am personnalité am dignité te li ci gën a neex mooy ay soxna rek a fi ne té ñëpp xam nañ ne soxna yi ñoy fal président de la république ñokoy wacc kon nak kon nak ñu ngi wat and bi ngeen and ak Gilbert fas yéene wat and bi nga xamantene ne di ngeen ko and ak Pape Sirédia yaakar na né ne de gor la té nañ leen dem sous peu de temps di ngeen xam ne Pape Sirédia gor la jërëjëf merci. baax te di leen euh, masawu coono yi di leen wax ni. yéen ak Gilbert Samb ci turu directeur général de la poste ci turu président de la république ci turu ndawu APR yi ci turu mboolem militant ak sympathisant wu APR ñu ngi leen di wax ni dal leen ak jàmm ci biir alliance pour la république di leen xamal ni dinañ leen téye dinañ leen jàppale te dinañ leen jàpp di xam ni fii ngeen toxu si yeex ngeen fee toxu si incha allahu rabbi sunu ñaareelu dajeeg yéen dajey jëf lay doon waaye du doon dajey wax ndax ki nga xam ni moom lañu àndal mu leen di dalal tey noonu lay doxe te képp tamit sunu kilifa ñu ñëpp ci parti bi muy la président de la république kenn ku ne xam na ni yar ak teggin ak teey ak noppi ak wax lu dul lu ñaaw ci mom la deppé kon su ngeen non noonu ñu andé ak mom non la fasiyéné and ak mom wax ji nak dina neew lool waye jëf ji dina bari lool kon heure bi mu ñëwé ni ñun kenn ku ne xam ni jamono yi dañoo nekkon ci ben combat interne ci bir APR mais tay ji fi ñu jëm d'ici le 23. ak le 25 kenn ku ne xam na ni Gilbert ci parti bi mu jóge muy PDS dañ ni dañuy taar réew mi ndax suñu tëjee benn nit te am ay nit ñoo xam ne tëj leen leen ñaar fukki at ñun ci kaso bi kenn jooyalu leen ñoom jàpp nañ ni kooku dong dong mooy sénégalais kooku dong dong moo jàng kooku dong dong moo man kooku dong dong moo am tey réew mi mënuñu ko yor ci lu dul ak njub ak jubal suñu bëggee ñun néew di doole ji ceeb gën a wàññeeku suukar gën a wàññeeku dawlin gën a wàññeeku gaz gën a wàññeeku courant dootul coupé faaw ñu gouverner réew mi ci ak njub loolu mooy li nga xam ni moom lañ ci instauré moom la président Macky Sall di doxal ndax tey jii ñun ñii ci dalal Gilbert Samb suñu fekkoon ci PDS kon tey jii ay 4 x moo fi gaare ay pasar pasar ak ay yàq mooy am tey ci ralliement bii mais dañuy gérer réew mi ngir néew di doole yi alal ji ñu séddale ko ñëpp mën cee jot ab door nag day metti dara xëyul xëy sotti kër gu baax kenn du ko tabax sax ci juróomi at kon président mu ngi liggéey ndax yéen xam ngeen ni Gilbert kim leen booleel depuis ba mu toogee ci réew meeg léegi kenn duggul ci bitik ñu ni la ceeb yokku na juróomi dërëm wala ñaar dërëm kenn duggul ci bitik ñu ni la gaz yokku na démb kenn dugul ci bitik ñu ni la meew yokk na démb kon Gilbert fim leen indi indikaay bu baax baa ngi noonu ñu ngi leen di dalal jàmm di leen ñaanal suñu premier daje ak directeur général mu nekk daje boo xam ni day indaale jëf ju wóor ju leen fi samp tee leen ñu ànd liggéey falaat président de la république 2017 ñu ngi leen di sant di leen gërëm nga xamante ñoo yor métier journalisme teew fii ngir couvrir yëf yi Thiès day xat mais dañoo taamu suma manifestation loolu aw seen fay nuyoo bi si ñoom laay njëkkee di yeggale nuyoo bi si ñi nga xam ni saa su ne dañuy dawloo suma yaram saa su ne niñ ma taxawoo billahi wallahi tallahi aw ma seen fay yàlla laa leeni kalaameel muy suma jigéen ñii awma ma seen fay yàlla laa leeni kalaameel ndaw laa ba léegi jeune laa ne amaguma sama 35 ans jeexagul ta waaye ndaw gu ragal bor la ne man ku xam suma politique li tax ma fasanteeg nit ñi kóllëre te ku gis suma mbooloo daaw suma woote waatee ren nga gis ko te déwén incha allah ñii ñoo fii ñëwaat mu yokku li ko waral mooy nekkuma woon si parti bi ma nekkoon di wër di raket di dem si nit ñi di di leen sibooru pour am dara def ko si suma bopp PDS gi ma jóge dama faa set wecc

rallier pour ay koppar bi may wax moom dajale naa ñenn si ay famille ñu toog ak ñoom li nga xamante ni moom laa tënk ak ñoom mooy yéen ñi jigéen ñi lu jëmale seeni mbir kanam ne jigéen moo yor kër ñëpp a xam ni salaire yu góor di fayeeku kese yorul kër man suma soxnaa ngi ne suma salaire rek yorul suma kër li muy def si salon lay indi ñu koy bokk kon yéen laay jàppale ngeen mën di jàppale suma pappa yi si kër gi te incha allah fas naa leen yéene ñu ànd ak Siré mu jàppale leen man utuma dara li tax ma jugee si parti yi ñëw fii mooy yéen nuñ leen jàppalee ne PDS ga ma nekkoon sonn ngeen trop naam sax am na luñ fa am mais seen cër li ngeen waroon am amoo leen ko incha allah li ngeen war a am di ngeen ko jot dinañ jàppale le président Macky Sall parce que Macky Sall kat man yàgg naa kaa bëgg a jàppale mais ñëpp a xam ni président amul jot yen biñ ko dénk dafa diis mënta gis ñëpp mënta recevoir ñëpp li muy def dafa koy defal pour Sénégal kese waaye ñëpp a xam ni président am na ñu mu wóolu te ñi mu wóolu man kat damaa xool profil si ñi nga xamante ne ñoo dëkk Thiès gii ma dëkk ma xam waa APR yu bari ñu bari ñëw si man la ma leen wax mooy wax ji bu mu sori maag yéen dañoo ànd xam naa si yow nangam ak sàngam nangam te man sama fukki nit yi damaa bëgg ñu yok kon ñooñ duma ànd ak ñoom biñ ñëwee wax ma waxu Siré Dia ma xool profil xool jaar-jaaram xool biñ ko dénkee liñ ko dénk lan la si def gis naa ni si moom pasar pasareewul gis naa si moom mi ngi jéem a yokk ay emploi ne am na jeunes yu bari yoo xamante ni diir bi si la ja toogee ñu ngi leen di jël ñuy liggéey ma ne pourquoi pas waa Thiès su may am di jàmm suma ma waa koñ su may waa waa Kër Daago waa Hersent yi ñoom ñëpp gis si seen bopp te incha allah loolee ma tënk si rajo loolee dina am lii laa doon xaar ngir def déclaration bi pour ñu ànd dem si moom. mu wax ngeen dégg mu jëf ngeen gis ne man képp ku may àndal ngay homme politique di doxal dëkk bi damay taxaw taxawaayu avocat wu population bi à chaque fois sama wax gépp mooy yéen ma jéem a def seen plaidoirie yi pour ngeen jot li ngeen moom si yëf yi te incha allah si loolu laay dox si loolu laay dem PDS ga ma jugee nag heureusement ñi fi teew di journaliste ñoo daan ñëw daawat daawaati géej ñoo daan ñëw si bépp manifestation PDS mësuñu maa gis ma des ginnaaw te xalaatuma ànd ak nit di des ginnaaw li ma nit ñi seedeel si Siré Dia moom laay jël engagement si sumay kanamu mbokk mooy suma góor gi day continuer PDS man may kii génn si parti te nit du ko xas ñaanuma kenn sibooruma kenn dawuma si ginnaaw kenn jàmm laa seek ak nit ñi nit yabu ma fa billahi nit yabu ma PDS kenn du tontu si ñoom kenn du si tontu parce que wanu ma leen lu ñaaw kon yéen ñi àndal seen xel na dal li ngeen ma wax mooy yow la xam xamuñu beneen parti xamuñu koo mënti àndal yow yaa ñu intéressé intéressé gi ma leen intéressé ngeen intéressé ma noonu fii nii ñuy dem di ngeen gis seen njariñ kenn leen siis kenn du leen siis kenn du leen ñàkk jox cër bis bi li ma si gën a neex dama ne Siré suba laay def déclaration mu ne ma ah xat de ñoom Lamine a nii ñooy teew ma ni nga xatul ne man sama mbooloo dañ maa bëgg te maa ñoom ñoo ñoom ñooy samay responsable man maay seen militant su ma leen waxee suba kon tey dinañ préparé wu dem ñu si bari si ñoom tey suba lañ ko yëg ñenn ñi ne ma loolu waxuma la dañ si ànd waaye dañuy dem léegi ànd ak yow yëf yi di wër journaliste yi dem bi ma leen woo presque minuit jot na minuit jot na kon ku ku ku préparé wu moins de cinq heures de temps nga de dix heures lii nga am kon sant yàlla si la na dalal xelam beneen bis des si la bi ma ko waxee mu ne ma foo koy defee man ma njoot ni nala tudd benn euh, place privée bu du mu ne ma teen kaa defee si permanence ba man ka sa permanence fu mu féete mu ne ma déet yóbbu ko si permanence départementale xam ni lii nii ñuy ànd ak man yow lu du lu dul lu falaat Macky Sall 2017 kon Siré may jàpp ni deful comme ñeneen ni ñuy def di xëccal boppam di ñoddil boppam pour fës kon Siré xam na ni président wóolu na ko ba pare te si loolu lay dox Euh, leneen li maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp incha allah dañ ne le 23 day tàq ndax benn procès bu ñuy délibéré le 23 Thiès dina tàq ndax dañuy délibéré benn procès détenu X moom la ñuy délibérel mais seen xel na dal man du ma nekk fu ñuy taalee mais lépp lu ma fas yéene ak nit du ma si dellu ginnaaw ñoom la ñuy waaj si suma xel la jóge man maa ko nas amuñu guerrier ay tappet lañu ña fa des tey suba woo naa si ñenn ñi man leen ndax yëg ngeen ni damay dem APR ñu ne ma yëg nañ ko mais bul def sa déclaration ñool ñu gisee man leen jarul ñuy gisee

dinañ jug taxaw laataa nit di yàq dara wala ngay def dara dinga jaar suma kaw place sangam dinaa fa teg ay nit altine place sangam dinaa fa teg ay nit altine te ñoom sax gëm naa ni duñu génn seeni kër parce que ñàkk nañu Gilbert kon loolu maa ngi dalal xel waa Thiès ku xëy na nga dem marché def li ngay def kenn du toj kenn du yoon dina délibéré su que eh, détenu bi moo def dinañ ko tëj su fekkee eh, deful yoon dina j'ai confiance à la justice C'est laay liggéey non j'ai toujours voulu répondre à l'appel du mais ici à Thiès aucun leader de l'APR aucun leader de l'APR n'arrivait pas à me convaincre Vu mon parcours politique en tant que jeune libéral et responsable dans l'UCL et responsable dans d'autres mouvements de soutien, seul le DG de la poste Pape Siréja représente à mes yeux. Uh-huh. Seule l'alternance, seule l'alternance me convaincra que son ambition, que son ambition pour le président Sall, pour, pour un Sénégal émergent, la l'APR, ma destination, Pape Sireja, la voie, la voie de l'avenir. Inch'Allah, dañ ànd ak de ba faw dañ en 2017 te Macky dina 2012 bi ma opposition bi ma au pouvoir Macky daf ñoo gagné ci 34 nangam sangam pour cent jàpp 2017 dina gagné plus de 80 Inshallah, parce que Sénégal amul benn candidat boo xamante ni yéene nga li Macky Sall yéene Sénégal te mi ngi prouvé nit suy prouvé da ngay ànd ak moom Abdoulaye Wade xolam bu njëkk moo doon ñu jàppale Macky kon su demee ba soppeeku man doot ma ko changé doot ma ko xàmmee loolu bokk na si li waral ma fi jóge daf ne jàppale leen nga bëgg a soppeeku di ko tam dëmm di ko tam leneen ak leneen ñun loolu Sénégal yarewuñu ko xamuñu loolu kon je m'engage avec tous les Thiessois derrière Pape Siré Dia pour la réélection de Macky en 2017 je vous remercie